jàngeen jëf mbokk yi xarit yi ñuy bàyyi xel ci sunu page univers info tv euh, tey nag li gën a fës ci boppu xibaar yi comme ni ngeen ko gisee muy circuler ci réseaux sociaux yi muy information bi nga xam ni jot na fi jàll ñu koy bàyyi xel ci ñenn ñi nga xam ni ci jege ñaale yi la waaye ci ay xarit ci ay mbokk ki nga xam ni moo di Ndeye Gueye ñu xam ko ex danseuse danseuse boobu di Ndeye Gueye moom nag instant bi ku ne xamoon na digganteeb ak ki nga xam ne moo di Papa Boy Djiné waaye ñu dem à un moment donné moom Papa Boy Djiné nag daal di changer turam tuddee boppam ki nga xam ni moo di Madji Madji instant bi nag moom couple bi nga xamoon ni ñëpp xamoon na leen ba ci waykat ak lépp lum ci mënti doon dañ ko daan dàkkantalee ki nga xam ni moo di ndey Gueye série Papa Boy Djiné instant bi nag ñu ñuy xamal ni que ñoom li nga xam ni moo di ab divorce bu ñu ci sukkandikoo ci source yu baree bari yoo xam ne mu ngi lëmbee réseaux sociaux yi ñu bàyyi ci xel ci ay seen ñenn ci seen jege ñaale waaye ñenn ñi nga xam ni ñoo leen di ëpp lu leen di fréquenté que ni divorce bi nag am na euh, malgré plusieurs reprises xuloo doon na am ak euh, ñagas-ñagas comme ni ko sëy yëpp doon amee noonu nag la ñu waxee ni diggante Papa Boy Djiné ak Ndeye Gueye noonu la amee ñagas-ñagas ba instant bi nag di Ndeye Gueye nekkatul ak ki nga xam ne moo di Papa Boy Djiné suñu sukkandikoo ci suñu naataango ki nga xam ni moo di buur géwal jot na ci def leen benn plateau sax di ko waxtaanee waaye ma ngay xamal ni que ni ki nga xam ni moo di Ndeye Gueye ak Papa Boy Djiné war nañu dépasser fi nga xam ni moo di divorce ndax nekk nañu couple boo xam ni ñëpp leen doon bàyyi xel ci travers euh, réseaux sociaux yi ci travers monde ci travers fu mu nekk ndax ñoom ñëpp ñu leen doon xamal ni que ni instant bi nekkoon nañu ay référence ndax euh, ki nga xam ni moo di Ndeye Gueye à chaque fois rek bu ko mësaana dëpp li nga xam ni moo di micro day favoriser borom këram maanaam nekkoon na ko boo xam ne amoon na complicité ba tax na euh, moom buur gi wal mi ñuy xam ni que Ndeye Gueye référence la waaye nekk na nit koo xam ni tey ji école la pour nit ñi bàyyi ci xel bu baax a baax ndax bëri na ay xale yu bari ci euh, ci milieu fecckat bi Ndeye Gueye ñoo tax ñu xam tamit euh, à chaque fois rek fu mu toog ci plateau mu ngi tiitaroo ki nga xam ne moo di borom këram kon bu ñu sukkandikoo ci buur géwal rafetluwul li nga xam ni am na ci diggante Papa booy Djiné ak Ndeye Gueye ndax nee nañ ay référence lañ waaye sëy tamit du ñàkk ay ñagas-ñagas ci noonu nag la ñuy wax ni à tout le temps rek nañu bàyyi waat xel ci mag ñi jéem a defaraat bi dem sëy ndax nekk na loo xam ne xale yi doon nañ ci roote te nekkoon nañu tamit loo xam ni xale yi bari doon nañ ci bàyyi xel ndax da doon joxe exemple ci sëy moom Ndeye Gueye waaye tamit daf doon wane bëgg gi nga xam ne bëgg na ko boroom këram kon euh, ñu koy ñaan laat tamit nekkul souhait suñu souhait mais plutôt dañu bëggaat couple boobu nga xam ne mooy réconciliation parce que nekk nañu ñoo xam ne tey ay référence lañu ci réew mi ci noonu nag lañ ñu bàyyeekoo information boobu ngir daal leen ci indi leeral nekkul namit information bu ñu rafetlu ndax ku nekk bëggul ñaar ñu séparé sunu boroom mi nga xam ni sax dafa bind separation sax daf ko sib kon d'ici la portez-vous très bien ñu ngi ñaanal seen diggante defaruwaat ci barke Seydina Mohamed ak bépp diggante boo xam ni fekk si na ko mu am ñagas-ñagas donc portez-vous bien di leen wax ne leen jaajëf ci teewlu bi ngeen di teewlu Univers Info TV ngir sunu xibaar yu am solo yu leen dëgmal la saa su ne di leen ko jox di ko ànd ak yéen te ñu koy saytu di ko leeral ba mu leer ngir ngeen ci mën a jariñu bu baax a baax a baax a baax Univers Info TV s'informer devient une priorité d'ici là portez-vous très bien